Dakar Matin. ñi ngeeg euh, Serigne Mor Mbaye mu nekk psycholonicien ñu bëri xam ko ci réew mi te jii gis nañ dogal ba nga xam ne mi ngi bàyyeekoo ci cour suprême mu aaye ñii di waa diaspora bi euh, pour ñu indi seeni néew yu faatu ci Covid 19 bi pour mën leen denc fii mbir mi nag euh, ñu bëri nee na débat scientifique la waaye OMS terewu ko comité scientifique bu dakaar fii moom moo ko te moo ko dogal lan mooy njeexitalu dëj sa néew ci ay nit. man day doon loo xam ne lu lu metti la xam nga ñuul ay nit ñu ñuul lañu dañoo am aada nit su amee aada aada lu am solo la mooy mooy defar nit mooy yëbb ci moom mooy dalal xelam mooy tayam mooy ëllëgam nit ki xam ni dafa dafa bàyyeeku daf ñoo dafa dem eh, nit la koo xam ni su fekkee ni yow da nga ko bëgg a bàyyi fa mu nekk day doon lu mett loo xam ni du dañ ci yow mën naa dem ba lëmbaaje sam xel yàqal lu bari ci sa dund ak ci sa wéruk xel donc man li ma xam su fekkee ni OMS wax na ni amul benn euh, conséquence boo xam ne mën na koo indi ñi xam ni duñoo dem te doon ñoo xam ni du war fa kàll li leen yóbbu moom xanaa kay réew mu tas la waaye kenn bëggatu jóge sa réew dem fenn ñooñu ay citoyen lañu yoo xam ni su fekkee ni yow da nga leen a tere lu mel noonu dafa am loo xam ni dang koy da day day dog ci ñoom buum gi xam ni moo dox seen diggante ak seen réew mën naa mën naa dog donc euh, dama xam ne damaa yaakaar ni xanaa xooluñu conséquences yi euh, xooluñu seen bopp xooluñu aussi ni euh, yërmaande ji xooluñu aussi seen aada xooluñu aussi fierté ndax xam nga réew yoo fi gis yu ci bari su fekkee ni seen aada dafa dëppook loolu ñooñu duñ koy def donc li ma ci xam mooy lu weesu su fekkee ni ay aspects médicaux am nañ ci su fekkee ni maye nañu ñu indi ña xam ni euh, ñoo ñoo ñoo ñoo dem ci ci mbir mi dama yaakaar ni li ñu war a def mooy indi leen gis nga doon naa ko wax ci joolaa bi joolaa bi musiba bala moo xam ni kenn mosu koo gis àdduna mosu fee am ay nit des ci biir géej su su su dul su dul question technique yi xaw ma question technique la xawma ma wala dafa am lu ñuy làq ci biir waaye ci dëgg-dëgg li ñu waroon a def mooy fexe ba nit ñi dellusi ndax loolu li muy yàq moo ëpp li muy defar ci ñi xam ni ñoo fi des ci seen wàllu xel ci seen wàllu wéru xel ci seen diggante ak seen réew loolu loolu lu am solo te defe naa ni euh, du njëg gu jafe waaye ñi koy dogal moom damaa defe duñoo waroon xool seen bopp Euh, soo xoolee sa bopp su fekkee ni sa aada la am na ñoo xam ni moom toll nañu foo xam ni loolu du dara ci ñoom waaye ñi ñi dogo ni seen duñoo bëgg seen seen i ñooñ dellu si ci seen réew ñu suur leen ci seen réew kooku moom kenn mënu ci fa ab door rek teg ko te sooraale woo li lépp li xam ni mën na ko def ci ñoom ci ay euh, mettit yoo xam ni day sax ci ñoom yàgg ci ba yàq leen lu bari. Serigne Mor Mbaye maa ngi lay sant di la gërëm jërëjëf. Joseph Pape Dakar Matin